بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim noo ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye di siyaare mbooleem njabootug sëriñ Touba gépp mbokk yi tey ñu am mbégte di àndaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit te ngeen di ko seetaan ci ñun dibéer ju jot bu 22h jotee ci guddi ci seen télévision Lamfal TV. ñu jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqaloon jataay bi jàll te doon waxtaane cosaanul Daaru Salaam Maodo Murit di tooli Serigne Cheikh mu Serigne Saalihu bokk yi tey ñu amaan mbégte ànd ak yéen ci beneen jataay ci ëtti Serigne Touba yi waaye ci ëtti murit yi tey jii nag fan lañ jëm mooy dañuy dem ba fa nga xamante ne bii fa la cosaan lu mag la bàyyi ko mu di Tayba Tayba buñ ko tuddee xel yu bari danañ dem ci tafsir Mandoumbe Maar tafsir Mandoumbe Maar doonoon nitu yàlla ku mag koo xamante ne bii xaafisul quraan la woon waaye xaalim la woon nekkoon xaabit waaye nekkoon nag ku taqoo woon lool ak sëriñ Mbacke Mor Anta Sali lu ëpp ci ay sëti Serigne Touba di sëti eh, tafsir Mandoumbe Maar buñ fa duggee nag kañ fa tànn ngir waxtaanee ko moo di ñetteelu doomam di Serigne Mirina moo tax ñu toog fii tey ci kër Serigne Mahmadan Sill bokk ci sëti Serigne Mirina yi. ci këram gi nga xam ne moo ne ci wetu marché Ocass fas yéene seq jataay bi ak lenn ci ay sëtam moom Serigne Mirina ki ne ci suñu loxol di di soxna Ndeye mbakke moom sëriñ Cheikh aw Balla yaa xafaara zunub bokk ci sëriñ Serigne Mirina yi waaye ñu fegoo fii ak sëriñ Mbacke Sill moom itam bokk ci sëriñ Serigne Mirina yi waaye nag kilifa ak jataay bi. di sëriñ euh, Deqale sil mi nga xam ne moo fi toogal tey jii sëriñ Ousmane Sile mi nga xam ne moo yilif askan wi yëpp. Euh, ñu fas yéene seq jataay bi nag ngir fàttalikuwaat askan wu mag woowu bokk yi woo xam ne ku teelu rek incha allahu rabbi du du ñàkk nga yëg ne ndakate man maa ngi doon ndox ndakate bokk na maag euh, sang yu tedd yooyu bokk naa ci askan wu mag woowu. ngir bañ a guddal damay bàyyi sama ndijoor soxna nday Mbàkke mu nuyoo ak ñun su nuyoo nag andil ñu. sëñ na miñ bëgg a waxtaanee suñ ko bëggee xam soxna nday mooy kan ci aw askan ak mooy kan ci diggam ak sëriñ Touba Xaadimu Rasuul. ma Malick Coro ab taawam dafa doon jàmbaar lool ca xare ba ba xare ba jeexee ñu ne ko yow de ni nga doonee jàmbaar il foo ñu fal la ci gox yi fenn mu yëkkati loxoom ne man de noppi na maa topp benn buur budut yàlla. daa di gàddaay ñëw ndogal fekk sëriñ ndogal ab daal la buri moo ko moo ko dogal daa di ko dëkkal dëkkoo ko mu dëkkoo fi dafa jaamu yàlla moo sanc mboolem bay yi mboolem Tayba goo dégg rek tay ba Dakar ak ba sanc ak ba xay ak ba béb ak Tayba yaatu nañ lool Tayba bépp nag wax nañ ne moom mooy mooy cosaan mooy maami mboolem Tayba yi mm-hmm. comme sëñ miir na noonu la defoon noonu nga xam ne la juddoom rafete nag ni la jikkoom rafete woon la jaamu yàlla am rafete woon lu dul yàlla neen safu ko yàlla rek a ko saf mës yëngu ci dara loo xam ne lii lu koy may àdduna la wala lu koy may aw tur lu koy may am lu koy jariñ digganteem ak boroomam rek loolu nun ñi nga xam ne noo mujj a judd sax ci ay sëtam booy na sunuy nopp dégg nañ ko ba tàyyi kon sëñ sëñ Mar sëñ Fall ma yem foofu ba ci kanam. ndax bëggoon mënoon nañoo xam sëñ Mirina ñan ñoo de ak njabootam. waaw sëñ Mirina de man de xam naa fukki doomi sëñ Touba yoo xam ne koo taaw këram woo sëtu sëñ Mirina nit génn wuyu la. Mhm. maa ngi ko tàmbali sëñ Modou Moustapha taawam sëñ Touba. Mhm. mii nga xam ne moom moom la Amadou Muxtaar mii wuutu di xalifaam. Mhm. sëñ Xaadim nekk na xalifa sëñ sëñ Modou Moustapha hmm. sëñ soxna Mar Sylla way juróom hmm. sëñ mbir ko jur hmm. nga dem kër sëñ Fallou Cheikh Abi mii fi nekk soxnaay bi ndeyam soxna ëstu Cerno ma ko jur soxna ma dem Balla Sylla ko soxnaay bi sëñ Fallou ko jur soxna ma dem Balla Sylla ndeyam sëñ mbir ko jur nga dem kër sëñ Abdu borom dër bi Soxna Daba moom dëkkoo woon. moo yaayu sëñ Sidi mi ak soxna Faati ak mboolem seeni rakk soxna xari sil ndeyam sëñ miri naa ko jur ba sëñ bi làqoo sëñ la xata ko dëkkoo njaxat mam caam moom la seexa bi yor lampaam yàlla na ci yàlla def barke nga dem kër sëñ sony bu sëñ baar ak sëñ Murtala sëñ sony boy seen wayjur ay soxna Amy Sylla seen wayjur wu jigéen Matar Penda baayam sëñ mbiri naa ko jur mm-hmm. Mm-hmm. nga dem kër sëñ Abdou Xaadir mm-hmm. sëñ Fàllu mii di yilimaan ji ak sëñ Abdou Lahad rakkam soxna Bintu may seen wayjur sëñ Abdou Xudoos baayam soxna Marim Ball la ma ko jur sëñ mbiri naa ko jur ay sëti sëñ mbiri naa nga ci kër sëñ Murtala boo demee ko sëñ Basiru hmm. fàtte woon naa ko sax te ci taaw yi sëñ Touba yi la bokk sëñ Thierno mii taaw sëñ Muntaxa hmm. ak seex rakkam hmm. ak mboolem seeni rak soxna Marie mu seen waju soxna Soda lu ma ko jur sëñ mbiri naa ko jur dëgg sama yaay sëñ mbiri naa ko doom a ngay sëy ak aboom sëñ sëñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad kenn kaa ngay sëy ak sëñ Mourtada day nekk ci marché mbaay mu ñu koy wax sëñ Seex mhm. nga dem ci rakki doomi sëñ Tuubaa yi rakki sëñ Tuubaa mhm. maa ngi ko tàmbali kër borom daaru soxna Maram Balla moom may wax mooy way jur sëñ Xuddoos ak sëñ Dan mhm. sëñ Modou Abib soxna Maram Balla Sill seen way jur sëñ Mbir naa ko jur nga dem kër maam Cheikh mooy way jur soxna Daba moom ma doon wax moom la sëñ Abdou borom dër bi dëkk ko woon mhm. soxna xarit yi sëñ mbiri naa ko jur mhm. nga dem kër sëñ Balla Coro mhm. sëñ Bàcc Mbàkke mi nekk Martinique affaire l'islam li fay toppatoo soxna aussi lu way juróom sëñ mbiri naa ko jur kat Cheikh Absa soxna Fall Syll moom dëkk woon moo yaay sëñ Abdou Mbàkke ak sëñ Modou Mbàkke ña nga tey bu mutt fa balañ nekkoon soxna Fall Syll seen yaay. Mhm. sëñ mhm. waaw mhm. am na solo am na solo li nga indi waaye ci sëñ Mérina kon damay bàyyi mu dallu tuuti ma ñëw ak euh, sëñ Mbacke sëñ Mbacke yaakaar naa yaakaar naa ne dégg nga soxna euh, Ndey Mbacke fi mu jaar. ci cosaanul sëñ Mirina e, mu nekk ñetteelu doomu Mandumbe Maar bokk ak Mor Xari mi taawu Mandumbe Maar ndey ak baay Xari Jaxate Jóob ma leen meññ bokk ci njabootuk e, mm, kokki te yaakaar naa ne dégg nañ la ci sëñ Tuubaa waaye nga ñëwee ci barkeelu askan wi nga xam ne eh, ndab lu sell li nga xam ne moom la sëñ Mirina yoroon toxoon na Serigne Touba eh, nangoo jaxasoog Mandoumbe Mar limal na la lu ëpp ñaar fukki sëti sëñ Touba yoo xam ne ñii rakki sëñ tubaa lañ ñii njabootu sëñ Touba lañ kenn ku nekk boo da boo ne sa maam mu delluwaat ci sëñ Mirina ñu bëggoon a ñëw rek ci jëmm ju sell jooju diggam ak boroom ba ni ko sun boroom tànne Serigne Touba doyloo ko ba jaxaseeg moom ak njaboot kan mooy sëñ Mirina wàllu jaamu yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi lay delloo nuyoo di la ziyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi nag sunu maam ji muy sëriñ Deqale Sill di doom ci sëriñ Mirina di ziyaare kilifa gu tedd ga di sëriñ Ousmane mi nga xam ne moom la yàlla teg tey ci bopp njabootu sëriñ Mirina gépp di ziyaare bu baax sunu bàjjan soxna Ndeye Mbacke mi nga xam ne moo dalal kàddoom léegi. di nuyu itam mbokk yi fi teew yëpp wuñu kenn sunu baay yi fi nekk yëpp ñoo leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax euh, sëñ Fallou Galas euh, yaa ngi laaj koo xam ne ku mat a xam la mm-hmm. muy sëñ mbiri na ma sàmba xëri mm-hmm. yaakaar naa li ci soxna day wax mm-hmm. euh, ci njëlbeen waxam rek mën na sëkk mooy sëñ mbiri na bu dee ci wàllu askan Eh, am na as judd bu rafet. Mhm. boo xam ne ci ay maamam yëpp. Mhm. li ñu ràññee rek mooy lislaam mhm. ñi nga xam ne bokk nañ ci réew mi. ñoo ñoo ko meññee. ci wàllu kër ak ci wàllu kër baayam. Eh, mu mel ni eh, tudd na way juróom wu tedd woowu itam. di tafsir Ahmadou Ndoumbe Maar Sill. wax it jaxasoo gi nga xam ne jaxasoo na ko ak sëñ Mbàkke Mor Anta nga xam ne benn lañu woon. na ca jaxasoo rek kenn ku nekk ci ñoom. waxoon ne bu ma fi bàyyi koo mm-hmm. nag ma taxawee mm-hmm. yàlla dogal sëñ Mor Anta Sali jiitu si Ahmadou ma taxawaayam ca am ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. euh, loolu dana ci sëkk mu daan mu daan ko gane si lu bare bare bari euh, kon kooku ci gàttal bu fekkee moom meññi sëñ bi na euh, da ngay xam ne kon li soxna day wax ne judd bu rafet yàlla defal na ko ko waaye nag yëmul ca doylu juddoom bu rafet bi ko yàlla jaaralee fi ko war a jaaralee ci ay waajur yoo xam ne yu sell la yu tànneefu lañ. Mm-hmm. dafa dafa am lu mu daan wax moom sëñ na mm-hmm. dafa daa wax ne course ba jëm ci yàlla day bëgguma ci ab deuxième. allahu akbar waaw course bi góor yàlla yi def. Mm-hmm. moom na mu ci ab deuxième premier la fa séenee nekk. dëgg la loolu nag mooy himma ji nga xam ne moom la nit yàlla yëpp amoon. moo tax yitte jooju nag moo ko may fi moo ko àggale fi mu àgg tey. ginnaaw bi mu gane àdduna. ci na ko soxna ci Médina ci ci Taïba Dakar. Hmm. Euh, wata wata toll ci daal jàng. Hmm. jaarale ko fi nga xam ne fa la doomi soxna yëpp di jaar. Hmm. jàng alxuraan jàng xam-xam teel a wat alxuraan lool. wax nañ ne laata muy am 18 ans. fukki at ak juróom-ñett. jëlee naa wattu alxuraan waaye lépp lu mu war a xam ci wàllu diineem. xam na ko ba loolu moo indi turu tafsir ñu woo ñu di ko waaye. tafsir nag ku doon misaal ci jamono ji tey mooy doctorat wala lu ko wala sax lu ko gën a kawe kon woowu yàlla yàlla na ko ko ci at yu néew ci loolu itam ci la continuer xam nga waajuram daara la yoroon di jàngale ñu bari daan bàyyi ko fu nekk di di ko fekk si mu leen di mu di jàngal ci gox yu nekk bi mu ñëwee itam dafa daal di wuutu waajuram noppal ko ci daara jooju doon ko ci daara ji di na njàng moom waaye li ma wax léegi ci yitte ji nga xam ne yàlla dafa na ko ko ba fa nekkee ab diir dafa xam ne nit ku nekk noonu loo fekk boo ko yokkuwul bokk nga ña ko wàññi mu daal di am yitte nag samp ab dëkk gor ab dëkk ca yooyu jamono ci la ko laaj ndigal ngir mu sanci ab dëkk mel na ne am na ab diir di ko ci sàkku ci moom ndigal waaye Ahmadou Omar mar joxu ci woon joxu ko ci woon ndigal ba ci année yi diggante 1893 jëm noonu ci la ko ci la ko jox ndigal ngir mu njëkk koo gor. Mhm. mu gor ko gor boo xam dafa daan bay bu euh, nawet bi jàllee mu dellu si teew Dakar. Mhm. ba ci ginnaaw làqu way juróom. ci 1893 boobu. jàpp 95 ci la ko sanc dëgg dëgg dëgg. Mhm. loolu itam euh, maanaam bi mu ko jox bi ko jox ndigal ci mu sanc dëkk bi boobu mi ngi war a toll ci ñeent fukki at yu teg tuuti loolu xëy na mbirum nit yàlla la moo tax mu ko doon xaarloo ci euh, waxtu woowu waaye jamono yooyu la ko sanc loolu it ay xese lu bari mën na ci am ndax gis na ne Sëñ Tuubaa ci waxtu woowu la gis yonent bi alayhi nga wasalaam ngeen def itam ci waxtu woowu la ko suñ borom euh, jox nu boogi moo tax xëy na xaarloo googu itam mbirum baatil mën na ci am bi mu sancee dëkk bi itam ci wax ak njàmbaaram wax na ne bi mu koy gor li ñuy wax gaynde fekk ne ko foofu ci foofu mu doon sanc kon da nga xamal ne kon gott bu kenn nekkul la woon mu sanc ko ànd ak ñam àndal def fa daara ju mag dafa jàngale alquran ak xam-xam tudde ko tudde ko madinatu rasul Mirina Sill lañ koy waaye Madina Rasul moo moo di aw turam xëy na loolu sax am na xesa bu am ci diggante ak sëñ bu ci àggat nañ ko leeral bi ko sancee nekk fa di jàngale di jàngale alxuraan ak xam-xam waaye sëñ na barke ba ak mbaax ga ak mën a yiir doomu aadama dafa taxoon fépp fu mu nekk àdduna sépp babu wut si ko na tam daxaa Taïba Daxaar ni mujjoon nekk dëkk bu mag moo tax mu bëggoon mu sancoon Médina ngir bëgg wéet ak ñëm bëgg a defar kon xam ne defar tàqula laaj mm-hmm. ak ci dëkk yoo xam ne dëkk yu mag yi xëy na euh, na nga fa na nga bëgg a tërbiya maanaam gàllankoor loolu moo sabab mu génn sanc euh, Médina Syll waaye nitu yàlla fu mu nekk di borom njariñ ñi bëgg àddina ñëpp daw wut si ko ndax am na am na kaaraange mm-hmm. ñi nga xam yàlla leen yitte itam ñëpp daw si ko ba dëkk ba fees dell mm-hmm. ci la danu si waat tuuti ci ginnaaw sancaat dëkk bi ñu wax Darou Salaam lépp ngir continuer li nga xam ne moo di ndonali mooy jàng ak jàngale. mbir ne googu tey ña fa jaar ci ay eh, borom xam-xam ku leen doon lim dana dana dana jeexal jotaay bi. Mm-hmm. ñëpp ci keppaaram googu la ñu la ñu alxuraan jàng xam-xam mu nekkoon béréb boo xam ne. ñëpp fa daan bàyyi ko di di di di di di di ko di ko wut si. Hmm. mbooloo mbooloo jaar nañ fa ngir sàkku ci moom xam-xam. Hmm. dundam gépp itam mu jeexal ko ci loolu. Hmm. liggéeyal yàlla. liggéeyal boroomam ci doomi jullit ñi. dañ teg ci yoonu siraatal mustaqim ci loolu la nekk moom moom sëñ Mirina mm-hmm. sanc ay dëkk mm-hmm. gor ay daara mm-hmm. euh, tabax ay jëmm euh, daal leen fa ñuy liggéeyal suñu borom loolu moo nekkoon njëlbeenu taxawaayu sëñ Mirina euh, Massamba Khary Sylla macha allah sëñ Bakke andil nga ñu dëgg-dëgg nitu yàlla ak njalbeenam te ku ne xam na ne bokk na ci ak njàmbaar dëgg mooy ni ko Mandoumbe Mbaar bàyyee woon xel ba wax nañ ne sax teeñ ñëwoon na fi di ko laaj mu ne ko duma ko mën a joxe ndax mooy samay tànk mooy samay loxo kon yaakaar naa ne njàmbaarug mm, sëñ Mirina akuk ragal yàllaam akuk maandoom andi nga ci lu bëree bëri rawatina teel a man alxuraan teel a am xam-xam waaye Serigne Touba laajoon na waxoon na sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mbokkam ma borom Firdawsi bindal ko baatub doomi soxna nee na daf ko bindal na ko doomi soxna day bu jàngut tilim bu lëggéeyut loof bu sancut réer kon day mel ne ñetti tomb yooyu moom sëñ Mirina génn na ci du laaj masala waaye di su ko binduloo saafara it mu koy yóbbuwaat faneen waaye it nag eh, bu lëggéeyut loof ku ne xam ne ne li ko suñ boroom joxoon ci barke ak li daan xëy ci moom lim daan dënale ci ay dab jéggi na dayo waaye itam bu bu bu sañcu du réer bu yemoon ci tey ba daqaar ji tey ji man dumbe maar rek la ñuy dégg aw waaye tey ku ne Mirina ñu ne sëñ eh, sëñ Mirina ko sanc ku ne Daaru Salaam ñu ne sëñ Mirina ko sanc woowa kon tur wa delluwaat na ca borom kon ku bañ a réer dëgg da ngay sanc ab dëkk waaye doo jeexal ca eh, dëkk ba nga xamante ni bi sa nga cosaanoo hmm. kon soxna Ndeye damay dellusiwaat ak moom rek yaakaar naa ne moom day yëg di wax ndax li may wax ku ko dégg xam ne lu mu maîtriser la sëñ eh, sëñ Mirina suñ borom joxoon na ko barke bu yaatu waaye joxoon na ko it ak ubbeeku ak dënn bu yaatu ba mayoon ko ak jaxasoo ci mbooleem njabootuk lislaam gi mën naa ko tudd di njabootuk sëñ Mbàkke Mor Anta Sali kenn ku nekk jàppoon nga ne rek yow rek yaa moome sëñ Mirina ba tax njabootam gi saaroo ci biir kër sëti sëñ Tuubaa yi dafa am sax li tax ma mujjee yaa sa saasum yaay sëñ ko sa gànnaar <coughs> doy sëñ ma doo bàll li tax ma mujj ko dafa am lu ma bëgg wax ci sëñ kosu mm-hmm. ndax sëñ kosu sëtub sëñ Mirina mm-hmm. waaye dafa jëf-jëf joo xam ne ca tund yëpp àdduna si yëpp la ko defal ndax mu def man mi su ma ko mënoon def ko yow moom soo ko mënoon def ko ko ko mënoon ci dëgg muy jumaa ja nga xam ne ma nga fa taxaw ñi di fa julli Karim moo doon xaritu benn bakkanam moom waxtaanee ak moom ne ko danaa la may jumaa bu ko neexoon yóbbu ko njaareem yabal. wala mu yóbbu ko longoor kër nijaayam dëgg la waaye mbir na sil la ko indi. Mm-hmm. jumaa jaa nga ne taxaw ca penc ma. te Karim Fall de xamul. xamul xamul kenn mbir na mhm. xanaa bokk sëñ Tuubaa la ko ay ba am fa bokk kon loole ñu ngi cay jaajëfal sëñ ko sama nga xam ne sëtu sëñ mbir naa te jëf-jëf ju toll noonu macha allah ca mbir na si li soxna sa sum way juróom sëñ mbir naa ko jur soxna Anta Touré rek am sëñ Abdourahmane lañ ko joxoon moo yaay sëñ maam Mamor ak ñam bokkal ndey ñëpp ñoo ngi ci ay sëti sëñ mbir na yu yu yu yu bokk ci kër sëñ Tuubaa lañ waaw ah waaw sëñ mbir day moom manoon a jaxasoo la ndax yàlla daf koo dénkoon xel dénk ko it ak muñ ba tax na loolu moo ko ma moo ko may mbooloo ma nga xam ne moo ko topp ndax mbooloo kuñ topp te amoo xel topp ga du yàgg kuñ topp te amoo muñ topp ga du yàgg ndax nit ñi yàlla def leen a bind wutale leen nit ñi kenn bokkut ak sa morom la nga sol noonu la cër yi wutee ne la xel yi wutee ak xalaat yi sëñ bi nag loolu lépp mu maîtrisé woon na ko muñ ko bu baax te lu mu amit mbokk la ko daan dikk ak lam daan bay di ko am soo xam ne soo doon na ko téye kon su fi doom ay na danañu doon ci lu dul jeex waaye bu fi jógee doonuñ ci moom sax ndax lu rek delloo na ko ci nit ñi lu ma saanam rek delloo na ko ci nit ñi waaw taalub jàngo bu mës sa fay daan jàngale dëkk bi doon leen jël loo xam ne dañ koy ayeloo ñépp ci këram ci la ñuy togge ci fi la ñuy lekk la ñuy defe lépp. dëkk bi yëpp. dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp. Mhm. ah sëñ Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Muxtaar yal na ko yàlla doolee leer nettali na ma ne ma. xam sama kër baay la yaroo ko sëñ Cheikh Awa Balla. Mhm. ne dafa ànd ak sa baay ne ñëw mbiri na sil mhm. ne ñu fanaan. nee na benn waaye nga fa xulóog soxnaam xulóo bu metti ñu yokkante ku ne di saaga sa moroom ñuy waxante lu bon. ne bët set ne mu daal di koy woo woo waa ji ne di ko yet daan ne ko amuy teggin amub yar ndax ñaar ñi fanaan ci sama kër gii de ak li nga fanaaneeg sa soxna si biig ne daal joxañ say Cheikh Sidi Muxtaar ne ko kii de li muy tuut tuut tuut sëñ Touba oh. te boo de sëñ Cheikh sax fukki at laa ilaaha kii di borom daaru hmm. nga fanaanee wax li nga wax ne waa ji daal di yuuxu mbëkk sàkketoon ne daal dem këram indi am xar ne daal di koy jox ni ko tuubale naa la ko hmm. ne xar moom dañ ko rey ca la ñu reer keroog kon xam nga kooku ab gisoom sore woon na lool. dëgg la dëgg la. moo tax sëñ Cheikh Sidi Moutar ku fonkoon waa kër sëñ mbir mi la. ku fonkoon sëñ mbir mi waa këram la man mi sax dafa maa joxoon ab kër ngir yàlla ak xëy na la yoroon sama kër bàyyi waaye nag sama kër ndeyit hmm. tax na mu lu ne daal dëgg yàlla teraanga jooju teral na ma ko. Hmm. te loolee gis nga sëñ sëñ sëñ mbir nag gisoon na kii dina doon sëñ Touba. Hmm. te loolu de boobu ñu bari gisuñu ko. dëgg la dëgg la. Eh, jërëjëf déggaat nañ geneen ganeen dolli ko ak geneen yokku ci gis-gisub sëñ Mérina waaye loolu day wane itam pas-pasam ci diggante sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bu fekkee ne ñaar ña fa ñëw ñëpp ay ndaw lañ ci moom eh, mu gis na kii borom daarul moxti rek lañ koy xoolee kii Serigne Touba rek lañ koy xoolee moom gisatut ñu jëmm ya waaye wayjur ya la fa gis te loolu yaakaar naa gis-gis bu sori lay doon damay ñëwaat ak yow ci alaaqa bi nga xam ne Eh, sun borom defaloon na ko sëñ Mirina ci ay bokkam waaye nag ca yeneen i bokk nag waaye mu tàmbalee ku ñu nag ci mbëndu mbémaar mi nga xam ne mooy way juróom jërëjëf sëñ Mirina buñ dee wax ci diggam ak ay bokkam maanaam daanaka mën nañu buñ dee wax ci baaxuk sëñ Mirina eh, li mu am lépp mën na ne ci diggam ay bokkam la ko yàlla jaarale mm-hmm. dafa doon nit koo xam ne ku mën a taxaw mbokk la mhm. fu mbokk nekk mhm. la ko ca war lépp dana ko ca def mhm. ña ci ña cay kilifaam ak ñam ca yilif ñam yilif lépp lu mu leen war a digal ak nu kilifa war a mel ci ñam yilif dana ko mate dana ko taxaw mat sëkk waaye ña ko yilif itam lépp lu dib cër ak teraanga daana ko defante ñoom ba mat sëkk te liñ naan baax ci baax baax gën a baax mooy nga la ci say bokk sëñ mbiri na bu ñu wax diggante mag ñi bokkal Tayba mën nañ ak penc moo ci dem wala mag moo ci dem rek da nga xam ne alaaxa bu rafet moo doxoon diggam ak moom tàmbalee ko ci ñi mbokkal tafsir Ahmadou Ndoumbé Mar Sylla sëñ Ndoumbé Mar dafa am nu mu nu doxale woon këram ci ak mu jëm dafa jëloon sëñ Bamba Faaxu Ja féetale ko sëñ mbiri na jël maam ñaga maram féetale ko Masamba Asta Masamba Asa itam moom it delluwaat jël lépp mel ne ni féetalaat ko sëñ Mbirina moom mi mag Masamba Asa moo doon taawu sëñ Mbirina ginnaaw sëñ Mbirina <laughs> ndax wax nañ ne keroog bi nga xamee ne sëñ Mbirina sëñ Mbirina Omar wàcc na liggéey ñu yebal sëñ Bamba Faaxu jëm mu ñëw fekk ko Mbirina di ko ko yëgale sëñ Mbirina daal di bàyyi ko foofu ñëw ñëw tay ba Dakar bu ñëwee fekk fa la fekk sëñ Masamba Asa <laughs> waaye dana ko aco doxal ca kanam man mag doo ko laaj ci li ci lépp mi ngi ci say loxo <laughs> xam ne sëñ Masamba Asa da ko bàyyee lépp noonu it la moo doxoon seen diggante nga xam ne wax na ne Massamba Asta Massa na sëñ bi na duut nangoo doon dara dara wax naa borom kër gi ñëw na. Mhm. Mhm. na Massamba Asta moomu doom. tudde na way juróom wu jigéen doom. Mhm. kon ah, xalaaka foofu la mën a yem. dëgg la soxna mi nga xam ne mooy waay mooy yaay sëñ Cheikh Ndiaye moom Astou Abdou Rassakh. sëñ Massamba yaay sëñ Asta moom la ko tuddee. dëgg la Astou bu mag ma Astou bu ndaw mi yaay sëñ di Astou moom la tuddee soxna Astou moom sëñ Mor Anta Sali hmm. mi mi waajur sëñ Mor Asta ak ñu mbokkal ak maam sëñ Silla la boo ñëwee ci suñu bokki bokki tay baxa yi ñooñu nga xam ne ñoo ko mën maar ay doom baay lañ muy sëñ Matar Penda ak sëñ tay baxa yi Ahmad euh, ñoom ñëpp ku ci nekk tudd na la doom hmm. sëñ Matar Penda tudd na ko doom muy waajur sëñ bàcc mi hmm. sëñ Moxtar Penda tudd na itam suñu tay waxee Ahmad Bamba mi ngi fi moo si maam jàqale mi ñoo tolloo at waaye sa maam sañ xaali moom itam suñu mbir tudd na ko doom euh, tudd itam boo ñëwee Taïba Njaañ sëñ Maseer Fatma sëñ Taïba Njaañ Maseer Fatma moo jur moo xëri baame baami sëñ Balago sëñ moo sëñ mbir na tudd na ko doom moom it ci aju mujj yi ñu yee ko mat gis naa fi ko sëñ mut sëñ bind sëñ moo xëri baame itam tudd na ko doom Taïba Njaañ la dëkk moo jur sëñ Ballaago wala sëñ Coro. ñooñu mm-hmm. ñooñu soxna Marème Balla mag ma itam moom la tuddee soxna Marème Balla way jur si Abdou Khoudous. ndeysaan kon nga xam ne kon diggam ay bokkam. Mm-hmm. Euh, nu mu gën a rafet rek. daana ko doxalee ak ak ñoom. Mm-hmm. daana wax ne moom de ci ay kilifaam kenn la ma saxam kooku kooku mas a kooku mas a dimbale. muy sëñ tabax yi Ahmad Bamba. moom moo ko mas a taxawu ci ci caab taxawaay waaye ci des ñëpp mel na ni moom moo leen daan ci barke ci bu ko yàlla defal moo leen daan moo leen daan taxaw moo leen daan taxaw loolu kon euh, diggante bu rafet la boo xam ne doxoon na ci diggam ak ay bokkam mm-hmm. boo ñëwee ci ñi bokkal kokk itam mm-hmm. daanaka ñëpp mën na leen tuddee ne doom mm-hmm. boo gisee assa su mag assa sàmbaak sëñ matu sëy na boog sëñ ma dumbeeg ba ci maam deqale mi ñoom ñëpp ci ay bokkam ci wàllu kokki ku ci nekk tudd na la euh, doom bokk na ci li mu daan def itam mooy daanaka ñi mu daan tuddee ñëpp bariwul ñu ci gis seen turandoo loolu kon sàmm kóllëre foofu la mën a mën a yem. ñu néew ci gis seeni i turandoo. kon loolu itam euh, doxoon na diggam ak ay bokkam. mu nekkoon ku ku fees dell ak njariñ na ko daa dimbalee koo xam ne lépp lu mu am. bokk na ak ay bokkam. daana wax ne man day am dara ubbi gaal denc ko ca doyuma. masa am am dara daal ubbi ubbi gaal denc ko ca maanaam euh, euh, li ñuy wax kopparoor ñuy denc dara <laughs> nee na moom daal lu am yàlla ko ca doy <laughs> ndax da booba daa am xisa bu ca am mooy daa am ku ma ñëw ne ko man day sëriñ bi dañoo sàcc ci samay sama sama denc samay sëriñ ma dencoon wala wala ma dencoon hmm. mu ne ko accam koo xam ne loo am sa loxol bopp muy la ko waroo denc dara bañ ko sàcc daane ko koo xam ne loo loo sa loxol bopp muy ko hmm. waroo denc dara bañ ko sàcc hmm. daane moom day euh, yàlla maanaam gaalam yàlla ko ci doy mooy koo xam ne euh, koo xam ne ko dénk du yàqu du maxee te dee si ko sàcc moo tax lépp lu ma ci yàlla koy delloo euh, sëñ Mamoor nettali na ne sëñ moo xëri nettali na ne sëñ mbir na at même gore ndangare bay na ñeen fukki sàq yoo xam ne laata waxtu woo di dellu si lépp joxe na ko ci bokk yi ba waa kër gi eh, dañaa wuti lu ñu lu ñu kon lépp lu ma saam ba ci ay bokkam. am eh, ni mu daan def ànd mbokk moo xam ne dafa amoon soxna soxna sa tool eh, yëwee ko mu ñëw di ko ko wax. Hmm. bi mu ñëwee sëñ mbir na def ko def ko daf ko daf ko jox ab gàtt jox ko la ci war a dem lépp daanaka nag boole bi na ko tuddee sa kilifa. sa kilifa ga dañu bañ a jaar ci tur wi. Mm-hmm. kooku ne ko déedéet ma demee laa koy tuddee <laughs> déedéet kooku it ko tuddee yaa koy tuddee nga xam ne moom dam daan def yàlla noo <laughs> na jëmm joo xam ne itam dafa mas a xuloo nit ci buntu sàkkat yi. Mm-hmm. maanaam ni mu daan taxawoo jirim daana wax ne eh, dara ci àdduna jëralu dégg jooy jirim benn bis daa am daa mas a nekk ci biir kër gi am ñaar ñu xuloo ku ñu wax saa ngay ak keneen di ja di ba ñu jàppante. ku ñu wax sànq ngi xotti mbubu euh, donga booba ci des te kooku baayam dafay nekkut mm-hmm. nee na bi ñu jàppante sëñ bi laaj loolu lu yëngu mu doon ñu ñëw wax nettali ko mu demee di mel ni ku daanub jël la nee na daal di xotti genn wala dara jëm soloon daal ne nañ ko ko ñawali man de dara jërul ma dégg jooy jërim ci sama atu bi daal di xot dara jëm soloon nañ ko nañ ko nañ ko ñawali kon taxawaay boobu la amoon ci ci ci ci ci ci mbokk yi mm-hmm. bu dee ci mbokk yi tam ñi nga xam ne seen waju dafay teel a bàyyi koo mm-hmm. mu taxaw leen taxawaay boo xam ne bu ci bu fa siroo ji nekkoo itam mënut a weesu loola. Hmm. ku mel ne Paate hmm. ni ko sëñ bi taxawoo ñëpp euh, wax nett ko ba tàyyi. Hmm. ginnaaw bi fi waajur waajuram jugee euh, toll ci jàng mu taxaw ko ba jàng xam li war a xam. mu wëlbati ko ànd ak ay donga ya ya jaayante woon ak moom ñëpp ñu ànd dem dëkk ba mu sancoon ñu yeesalaat ko kër gu ne mën la sampal fii kii sampal fii daal defaraat lépp. tegaat tegaat ko ci loxoom. loolu daana ko def. def na ko ñu bari itam ci ci tay ba xam ne bu ñu joxee sëñ Balla Paate mu doy exemple ci loolu mm-hmm. kon diggam ak ay bokkam noonu daan def mm-hmm. da barke bi ko yàlla joxoon daf ko bokkoon ak ay bokkam yëpp lépp lu mas am bokk na ko ay bokkam sëñ mbir na daawut daawut eh, lépp lu war lu war a def ci ay diggam ay bokkam daal. Mm-hmm. def na ko nam ko war a defee. muy koo xam ne nag eh, jikko jooju la ko yàlla joxoon. jikko jikko ji rafet ji joxoon ak xel mu rafet bi ko yàlla joxoon. moo taxoon ñëpp nangul ko. te mu nekk kilifa goo xam ne yàlla jox ko daraja jox ko wërsëg jox ko lépp waaye mu nangu ko bokk ay bokkam lépp lu masaam delloo na ko ci biir ay bokkam ma rafet bokk itam joxoon ko cër bi nga xam ne lépp lu mu leen digal ñu def ko ndax magam rakam yi nga xam ne mooy sëñ Bamba Faaxu ñu bokk nday bokk baay dawud euh, julli sax bu jot day day yebal ndaw ñu ñëw Mirina bu ñëwee day wax ndaw ne ko boo demee na taxaw ca penc ma rek boo gisee sëñ Mirina génn jëm jàkka ja rek wàññi ko ñu wax ma ma xam ne tey tey bi suñu xeet la. allahu akbar ñëwut a julli sax julli julli xëy te gisuñu ne suñu julli na. kon moom noonu noonu la noonu la amoon ay ay bokkam. sëñ sëñ Ndiaga Mara itam noonu la ko taxawoon. ginnaaw bi mu jàngee ba xam li war a xam génn gàddaay dem fa Saalum. moo ko moo ko jël moo ko jëlilu. bu ñëwee mu sampal mu sancal ko Taïba Sanji. taxawu ko moom itam. kon mën nañ ne ñi taxaw ci ay bokk. Euh, kenn xamutum tollu. macha allah noonu moo nekkoon ab taxawaayam. Mhm. xëy nag bu fekkee mhm. jërëjëf sëñ Bakke eh, dañuy wax ne nit bu ne baax na dañ naan laajal ba xam bokk yaa ko wax walla déet waaye yaakaar na buñ doon laajte baaxuk sëñ Mirina ay bokkam danañ ko mat ndax ci biir yëf yi da ngay gis ne day tudde baayu diw ba noppi tudde doom ja mm-hmm. day feeñ ci biir yëf yi ndax boo demee ci Matar Penda moo may ñi xaalimutu fa bu tuddee Matar pend doom tudd xaalimutu fa doom da lay tawal ne kon nam warmaale woon baay ba na lay warmaale doom ja ci yaakaar naa ne loolu yaatu na ci biir ñëwaat nga ci ku mel ne sëñ Balla Paate eh, way juróom génn àdduna mu jël ko jëlaale dongo ya nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo aju woon ca moom taxawu ko ba léppam mat alxuraanam àgg xam-xam àgg mu mat sëkk mu dem sancaatal ko ab dëkk fabaat dongo ya tegaat ko ci loxoom loolu maandu te féetewu ko féetewu ko kaw. yaakaar naa ne it kuy denc dénkaane eh, dénk yàlla mooy li gën a wóor li sëñ Tuubaa waxoon ne kanzul kitaabi wal hadis wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu zahab kon baax yaakaar naa ne yàgg na ci ëtt yooyu kon damay bàyyiwaat ak sëñ soxna Ndey rek moom lii ñëw ci moom mu dañ ko mën a waxtaanee ci baaxook sëñ Mirina ak sëtam yu baax yi itam li nga xam ne ñu ngi koy eh, def ci réew mi ñu fàttalikuwaat bu baax ci ay ñaan sëriñ Koso Gànnaar euh, taxaw moom sëriñ Modou Awa Balla doonoon sëcc sët ci sëñ Mirina waaye itam nag amoon taxawaay bu ràññ ko ak euh, sëriñ Mame Balla yàlla na suñu borom dolli seen i ngërëmul yàlla ak seen leer ci bar ci barsàqul Muhammadiya kon euh, soxna Ndey waaw sëñ Fall ah ndax moom loolu mu nga xam ne noonu noonu la xamee loolu mu seqoon ki bokkam man loolu xawma ko ndax moom dafa dëkk daan ko dégg ci ay baayam ki i maamam man nag nekkuma fa woon kon moom li mu wax ci diggante sëñ mbiri naa ki bokkam rek doy na sëkk sëñ mbiri naa xam naa ne nit ku baax la woon nit ku bikku la woon borom baatin it la woon nag ndax dégg naa sëñ baara mas na ñëw waxtu jàpp tisbaar dégg naa bi dégg naa daa yeewu ci yoor yoor bi daan ne gan dana fi ñëw de waaye bu jamu jee ci julli bu ko kenn sàbbaal allahu akbar ñu sëlmal tisbaar sëñ baara ne jàll agsi ak julli na tisbaar ba noppi tàkkusaan jot ñu kàbbar julli tàkkusaan sëñ baara di biral ñëpp yi dégg ñëpp ne pat ñu sëlmal daan ne ah, fii de mag a ngi fi ku ma rek du baax de la ilaha illallah noonu la amee <laughs> ah sëñ Modou Moustapha ko fonkoon ko joxoon ub cër la joxoon na ko oto boo xam ne bañ ba mu bañ seet contour ba la la départ ca poro ba exmir na sil moom moom la daw oto boo boobee ci kër ga lañ ko gaare woon kër gi it mas naa lakk moo fa yónnee ay paquet seng ak ay bantak ay pont ak ñu ko daaj ñu daajaat kër gi yëpp tàppaat ko ay seng ah, sëñ tubaat ko joxoon sëñ mbir na ab cër la nag dégg naa mennum sëñ mbir na kepp ma mas a fanaan biir kër sëñ Touba gii ci njaarim am néeg la fa boo xam ne bu ñuy moom fa lay fanaan mm-hmm. loolu de xanaa daraje mënu koo romb déedéet borom koo joxoonub cër la moom nag dañoo bokk ci wàllum ndey seen ñaar ndey dañoo bokk ca kokki muy doomi ndeyam di xaritam lool it ak njabootam gu bari nag ah ñëw kër borom daaru ndax boole soxna ma dem bal Sil moom way gis ñëpp du ko doos ñoom soxna Asu Sil yaay bàcc Mbàkke fële na yàlla fa dugal ak njaboot ci moom sama yaay dem fa soxna Assa Saasum soxna Anta Touré si ñoom ñëpp ñu dem ci njabootu borom daaru kon loolu yaakaar naa ne doyloo nit mënu koorom ndax nit bu la doyut jikkoom doyul ab juddoom doyu la doo jaxasoo moom deret dëgg la dëgg ah, daal moom ni ma ko gisee daal ku am solo la. <laughs> jërëjëf sëñ Mirina ku am solo la kon sëñ eh, sëñ Mbacke eh, dañuy ñëwaat ci diggam ak sëriñ bi tudd na diggam ak borom Daarul Moxti danañ tudd diggam ak maam mën ngaa tudd digganteem ak Serigne Massamba da nga tudd digganteem ak sëñ tubaa waaye ak sëñ tubaa yi kenn ku ci nekk boo demee da nga yaakaar ne sëñ mbiri ne ci kër gii la dëkk bëggoon naa tuuti nga ñëw ci diggante boobu. jërëjëf sëñ Fallou Galas bala maa ñëw ci loolu sax. maami sëñ Assane mii. moom mm-hmm. it uh, may tudd diggam bokk yi sama xel da ko fattoon. Mm-hmm. muy sëñ Mokhtar Demba. waaw waaw dafa gàddaay woon ba dem fële ca Bangaaj uh, ba Samb. su mm-hmm. fekkee sanc ba yàgg fa lool. ci sëñ mbir na ni mu bëgg woon ak bokk ba tax na fépp fu mbokk nekk lu mu ca man ci eh, taxaw ko ak di indi ko ci bokk yi dana ko def mm-hmm. mu laxas takk takke tay ba mm-hmm. dem jëli ko Euh, njabootam gépp euh, yàlla dogal ba mu demee fekk euh, sëñ boobu nekk mag mënut a dëppati waaye mu jëbal ko njaboot gépp te ko ci loxoom ba mu ñëwee la daalal sëñ Ablaye Sill fee ci Daaru Salaam ak ñi mbokkal ñëpp loolu it ab taxawaay la boo xam ne daana ko taxawee ci bokk gi loolu xëy na bi ñu li ñuy wax waxtaan woo waajut moom mhm. faawu léeg dara day ñëw ci yow rek waaye ku doon tudd tay ba penc moo ci dem mhm. am na jëmm yoo xam noonu leen taxawee mhm. boo demee tamit ñaan tërbiye ko moom àggoon na ci bu la ñaanal du tudd du du jàng ab aaya du bind saafara def dara barke sëñ mbir ne ci lay fale ci lay folee allahu akbar lépp lu mu ne barke sëñ mbir ne rek suñu borom def loola macha allah kooku ci kenn la ci ci nga xam ne ci kabaram la nekkoon mm-hmm. boo ñëwee ci diggam <laughs> la ko waxee léegi bi mu sancee mbir na mm-hmm. ci atum 1895 mm-hmm. nekk fa di jàngale alquran ak xam-xam ba yàlla dogal ci tënk rek euh, woote sëriñ bi woote. xam nga lu jiit loolu nekkoon na ci tarixa xaadiriya waaye Cheikh Sidiya junjoon na ko xamal ko ne ko borom jamono ñëw na. te it am jox mën dem euh, jaayante ji moom. am lu ko ci waxoon itam ko ci waa sa am na ko ci feeñ jamono. koo xam ne bu ñëwee góor lay doon nag ma ko tuddee. ñëwee fekk soxna Xadi Samba. am euh, gan mu tudd ko euh, mu tudd ko muy Cheikh Sidi Baba. Mm-hmm. mooy waajuru euh, sëñ jiili mi ak ñu mbokkal. Mm-hmm. Euh, ginnaaw bi loolu nga xam ne kon moom ginnaaw loolu lépp nag bi mu déggee woote sëñ bi. Mm-hmm. ci la gàddaa bàyyi ko Mirina waaye sëñ Mirina dafa nekkoon koo xam ne. dawul gis lu baax rek daal di daal di ko moom dem dem dem dem dem dem ca. lépp lu mas gis. muy lu baax. da ci ànd ak ay bokkam ñëpp moo tax bi mu gisee sëñ bi itam war caa dem itam daa xëy woo mboolem penc Tayba yëpp ànd ak ñoom ngir jaayante ak sëñ bi sëñ Mor Khary Baba Sili moom ma tuddoon ci la bokkoon sëñ ci la bokkoon Mor Assa moom ci la bokkoon sama maam aali jigal ci la bokkoon ak ñu bare bari ñoo xam ne xëy na ku leen doon lim du du jeex ñu laxase mbir na dem ceyeen fekk sëñ bi wax nañ ne bi muy dem sëñ bi am na bëkk néeg bu muy wax muy sëñ Matar Penda Ñang mm-hmm. ne ko am na gan guy ñëw de nañ ma ko teerul te booba diggante Thiéyène ak mbir na sore na lool mm-hmm. waaye eh, ci sëñ Matar Penda nekk ci penc mi eh, ci penc mi di bàgg di ko ñëw mm-hmm. nga am ne ku baax ki moo may teeruloo ganam waaye xawma gan ku mu doon nes tur sëñ mbir na daan ne jeexit ak akub gawaram mu daal ne ko ah am na kilifa ko accident ku ñu wax sëñ Tayba mu ne ko xaakasa kooku la bi mu ñëwee saafante ak moom nuyu ak moom xamal ko ngant yeeg mu ne ko man ba may ànd ak yow ca Taïba Dakar la woon ca jamono Mor Anta Sali dëgg la wax naa la ne Mor Anta Sali daan ñëw Taïba Dakar mm-hmm. daa ànd ak ku tedd ki mm-hmm. boobal la sëñ Mor sëñ Anta Sali mm-hmm. boobal la sëñ Mandoumar booba la sëñ Mandumba Maar mhm. gisoon may yi suñ borom def ci sëñ Mor Anta Sali ni ci Seexul Xadim mhm. ci la waxoon baytam wu si woow yi mhm. wa kam abin xatxala bi bi nin sara sarafan kama alat bi rasulillahi hadnaan te booba sëñ bi ci saayir ndaw la kero it la ko jëbal mboolem ay njabootam li firnde jëm mooy sëñ Mor Asta bi mu ñëwee jugee Taïba dem Ceyeen di seet sëñ bi di ko siyaare ji sëñ bi daane ko ana mbir ku ca mos a génn loo cay bokk bokk loo daane yéen seen maam dénkee sama leen démb tey door a ñëw mm-hmm. kon yéen ci biir njaboot ngeen bokk dëgg la daane ko nag seen barab maam dañu ko fonk mm-hmm. ndax wilaaya ga dara desu ca mm-hmm. bi la ko ci sëñ bi tegal kon wilaaya ak sëñ mm, Ahmadou Omar seera ja mooy sëñ Tuubaa ko leeral macha allah bi mu ñëwee nag jaayante ak sëñ bi sëñ bi daf ko wax ne ko koo fi fekkoon maanaam ku la fi jiitu woon ndam nga ko te ku la koo fi jiitu duutu la dab ah. loolu wax sëñ sa ñu bari nag bi ñu ñëwee am nañ fa ay fan ñaar ñett mu liggéeyal lu mu néew néew mm. waaye sëñ bi mooy ki xam ne tey la ñëw tey tey mm. ñu jox ko lam yor tey mm. mu dellu ci mu dellu këram ñett fan amu ko ci bis bi ngir wane ne lam nekkoon lépp lu wér la sëñ dana ko dellu fa nga nekkoon te nekk ca nga nekkoon macha allah. loolu la ko wax dellu fa nga nekkoon te nekk ca la nga nekkoon. macha allah dëkk boobee nag tudd naa ko Madinatu Rasul. <laughs> Mhm. waaw loolu mooy moo mooy première xalaaxa diggam ak sëriñ bi. Mhm. amoon nañu sa relation ca bokk na ci. Mhm. Euh, si Baye Baye Cheikh Syll. doomi maam sëriñ. mi ci turundu la. dafa mas a nettali ne ma sëñ mbiri na barke bi ko yàlla defal liggéeyam soxna Xadi Jaxate daan am na téere bu sëñ bi doon euh, jënd. ba ñëw ba Taïba Dakar sëñ Modou Nomar daal di wax soxna xarit ne ko ah nga ne dafay ñëw na ko defar ab laax am na téere bu muy jaay itam ci ñett dërëm boo ko ne fàggu nag soxna xarit fekk ku am barke la woon daal di fàggu ñett dërëm yooyu daal di ko jox Modou Nomar daan daal daal di digal sëñ sëñ mbir ne ko nag gan googu ñëw kat tolloo warul ak maas buy dellu na nga ko na moom fu mu la yiwee yal na ko ay bagaasam fu mu la yiwee nga jox ko ñett dërëm yooyu. <laughs> nee na ñett dërëm yooyu sëñ sëñ soxna xarit joxoon sëñ Tuubaa nee na moo war a barke sëñ Mirna bi mooy bi mu àndoon moom ci waaw waaw mu ngoog loolaa waral euh, ma ñett dërëm yéen yéen a jox jox Cheikh Bamba ñetti dërëm yi yéen a jox Cheikh ba loolaa waral xam na ko waykat am na ñu ko waxee <laughs> kon loolu jaar na fi <laughs> bi nga xamee itam jaayante na ak sëriñ bi sëriñ bi jox ko ndigal mu delluwaat ci lam nekkoon muy jàngale jàng ak jàngale mu dellusee itam loolu la continué mm-hmm. waaye dafa jël njabootam gépp nag mm-hmm. yët leen sëriñ bi mm-hmm. la ko ca sëñ Mor Xari sëñ Dame Fati sëñ Mat sëñ Mat Seynabu sëñ Cheikh Baba ñëpp la leen jël yët leen sëriñ Touba ñëpp yët ci kapaaru sëñ bañ bokk barki démb rek gis naa kaamil boo xam ne sëñ Mbaye ko bind muy mbind mu rafet moo xam ne yéeme na te wax nañ ne bi mu bindee bi jox ko sëñ bi sëñ bi dafa am na eh, mag mu ñëwoon di ko di ko siyaare si nee dafa dafa yëkkati dafa def nii ni téere bi ne ko xoolal ku bind ci frais yi mu xool ko ne ko ah li li de mbindum Babacar Syll la mu ne ko xaakasa ah, daane ko seeral ne sëñ Tayib Masamba Xari moo baax doom seeral ne sëñ Tayib Masamba Xari baax doom euh, nga xam ne kon mag mag ñëpp nag <laughs> foofu la ñàkkoon ci keppaaru sëñ bi waaye ngeen wax na ne ni mu doole woon sëñ bi tax na ñi mu joxoon sëñ bi itam moom sëñ bi na bi sëñ bi noppee ci ñoom mm. doomi boppam yi mu am mm. jëm boppam doyatu leen ci maanaam ñi mu joxoon sëñ bi ba sëñ bi yëwi leen ba sëñ bi eh, tërbie leen. Mm. bi ñu dellusee doom boppam yi féete suuf mm. da leen a jël jox leen ñooña. ñu ñeneen ña tërbie ña tërbie ci sëñ bi waaw. macha allah mooy sëñ Babacar Sylla. Mm. sëñ njaboot sëñ bi nag yëpp moo leen yar ginnaaw ñi mu mag ñëpp. macha la waral mooy booba sëñ bi nekkatu fi. Mm-hmm. te sëñ bi nag am na xir ci sëñ bi koo xam ne. li moom ku jógee ci sëñ bi directement rek moo ko ci doy. macha allah moo tax léppam eh, sëñ bi la bokk na ci dim ki njëkk tudd doom sëñ Tuubaa tudde ko Seexul Akbar mm-hmm. kam tuddoon sëñ bi sayxul akbar lañ ko daa wooyee. dafa mm-hmm. dafa yàggut. Mm-hmm. waaye ñi ko njëkk a tuddee doom ñu wax sayxul akbar mm-hmm. ci la bokk. noonu it la amoon maanaam bu ñu wax diggante ak sëñ Tuubaa moom. du jeex euh, du boo xam ne. maam Ousmane moo ko nettali sëñ Bay ko nettali. nee na sëñ Tuubaa ko nettali. nee na bi sëñ bi jógee ci géej gi ànd ak sëñ Mañaaw si la dem Njaareem. nee na biñ ñëwee sëñ bi dugal leen néeg ñoom ñaar fa lañ bokk yendu nee na sëñ bi di leen nettali yoonu géej gi di leen ko nettali di leen ko nettali di leen ko ba àgg ba jàgg mu leen sax de xaaka sax seen jotaay bi day nii laa ko bindoon ca géej ga daal dugg ci biir ne bi ne kër kër indi aw kayit mhm. ñu ñëw daal daal def nii daal laa ko bind am na loo xam ne nee na ba tey teguñu seen bët dèjà teg loxo ba ko binde mhm. bi ne moo ko fekke kon xalaaka ku mën am loolu ci sëñ bi nag kon xam ne nag ko jege woon sëñ bi la noonu it la meloon ci diggam ak njabootu euh, rakk sëñ tuwaay soxna Nday mi wax léegi diggam ak maam euh, borom Darou Moti. tudde na ko doom ñoo bokk nday bokk dëkk kokki ñu bokk lu bare bari yëkkati doomam jox ko ay ay ay njabootam itam du jeex ci kër borom Darou. bu dee maam Cheikh Anta itam sëñ Mbir na na ko doom. tudd na ko doom sama rek magi sama sëñ Cheikh na fi. moom la ko sëñ Mbir na tuddee. la la ko waral bi mu ganee àdduna dañoo xam ne sëñ Mbir na daa sàkk ndaw ñu wax ko sëñ bi. dañoo sëñ bi ne ko dañ ko tuddee Mahmoud. fekk noonu si maam Cheikh dafa daan ñëw lu bari bari. fekk eh, waxtu bi ñëwee maam Cheikh dafa ñëw. maam si mbir daan ne ah xanaa loolu kon dañ koy def tur biir waaye maam Cheikh li mu bàggante sama kër gi. rus naa gan di fi ñëw ma koy jox keneen ku du moom. ci loolu la tuddee maam Cheikh moomu. tudd na itam sëñ Massamba. tudd na ko doom may ko soxna. waaw moom sëñ Masamba mm-hmm. maam Sëñ Abdou Samane Mbacké moom la ko joxoon moo tax sëñ Masamba ne ko imraatun nafisatun jamila mm-hmm. mën na ko béy lu àggan doon na ko wax soxna sax kon moom eh, diggam ak njabootu sëñ bi gépp la amoon la amaloon relation boo xam ne ñëpp ko daan fekk si nag ñëpp ko daan fekk si bu dee Cheikh Moustapha Karim mm-hmm. eh, xëy na sàkkital ko kër gépp sàng ba mu daj may na ko oto def na ko defal na ko teranga ju nekk bu dee ci seex yi nga xam ne itam ñoo ñépp la amaloon xalaaqa mhm. sëñ bi ne yàlla da ko defaloon lamiñ woo xam ne lu mu tudd barkeel mhm. alaaji sëñ Dia moo jubee ngeen waxma turi seexu maam si ànd boobu alaaji sëriñ Dia mhm. dafa ànd ak ay donga ñëw jaar eh, doon ma jaal sëñ Ibra Ibrahima Dia alaaji Ibrahima Dia da doon ma ba jaar Mirina fekk sëñ bi ne ci biir jàkka ji di def ay lawraatam dong yi moom daal di jàll mu ne ah ma ne pencum baax bi dama fa jaar di teg kilifa gi fi nekk. Mm-hmm. daal di fay daal di koy xaar ba simila dafa daan def koo xam ne. Mm-hmm. jàkka ji dafay dafay dafay dafay yàgg lool. Mm-hmm. bi mu génnee ne ko euh, ndongo li fa bàyyi ko mu ne ko Darou Salaam. mu ne ko doon say tànk mu ne ko ah man dama amoon dañu doon màjjal ba jaar fi ma xam ne euh, daal du ma la teggi naa fa jaar la. mu ne ko foo nekk mu ne ko Daara maam si Anta. mu ne ko ànd ñi nga àndal mu dem nañ. mu ne ko boo demee Daara ja may naa la ko. may naa may naa la daara ja bi mu delloo la ko maam sant yiwi mboole ñoom àndaloon eh, ca ca majal ma mu jëbal ko mu jëb mu boole ak moom yiwi leen xam ne kon la ñu barkeel li ko yàlla defaloon <laughs> kenn mënu ko misaal loolu bokk na ci ay ay ci ay ay ay digg ay ay mbiram mhm, diggam ma sëñ Touré Mor Binta ak sëñ Afia ak mm. boo ko doon yëpp daal si <laughs> mbir moom kenn daw ko teg macha allah sëñ Mbacke eh, jërëjëf xam naa ñi ngi may wax sax na li ñu am ci waxtu daa mel ne fi émission bi neexee fi la waxtu wi je ak jegesee kon euh, damay bàyyi kàddu gi rek ak euh, Baye Serigne mu mu mu ñaanal jataay bi. Euh, su ko defee ñu daal di def nag li nga xam ne moo ñu taxoon a jëkk jataay bi nekk na jataay boo xam ne dañ ci doon fàttaliku. mag ñu baax ñi euh, tey jii ñu tànnoon benn banqaas ci garab gu mag gi mu di sëñ Mirina euh, yaakaar naa ne boo doon toll ba doon topp ëtti Tayba yi mën na ne mag moo jël rek boo ko waxtaanee danga naan kii lu baax bàyyiwu ko fenn waaye nag kiñ ci tànnoon tey di ko waxtaanee mu di sëñ Mirina te suñ borom dogal garabam car yaatu meññeen mi it bi bari loolu day tax ñu di ko waxtaanee ngir ñi ci bokk mën a xam ne am nañ royukaay bu doy sëkk ab royukaay bu fekkente ne bi ci lislaam la am nañ royukaay bu dee pas-pas la ci seen digganteeg sëñ Tuubaa itam am nañ ci royuwaay waaye dana xam ne it ne ndagate sëñ tubaa li sëñ bay jaxate naan ku not segg not ma fër not ñay mu daw du soowoo ki bay noppil te yow yàlla gis na la loolu dal na sëriñ Touba yaakaar naa ne mag ñiy jébbal seen bopp sëriñ Touba doxi fii dem ba Thièyeen ay mag ña loo xam ne laaju ñu nit masala waaye seen diggante ak seen borom itam kenn doyu leen fa woon kon liñ gis bay topp sëñ Touba laneen la woon loo xamante ne bii eh, ku toppul sëñ Touba doo ko mën a xam kon ñu ngi lay sant sëñ Mbàkke ci taxawaay bu baax baax di sant soxna Ndeye Mbacke eh, ci kaddu yu am solo yi nga xam ne andi na ko di gën a santaat bu baax a baax Serigne Mahmadan mi nga xam ne moo sabab jotaay bi ak bokk yi ko fekkee kon xam naa mën ngaa jox Baye Serigne mu defal ñu ñaan su ko defee ñu tëj jotaay bi. waaw li ma koy daal daal mooy mooy baaxu la. sama nijaay Cheikh Khary Dieng moom mooy sama nijaay moom Ndeye Mbacke mi nee na sëñ Tuubaa nee na ko suñu mbir si lu ko baax la. mais nee na ko sëñ Mouride Syll ku baax la loolu sëñ Mouride sëñ Tuubaa nag du waxantu moom du wax ngir bakkanam it waaye nee na ma loolu day yaay seqal jëm wax wax na ko ba nag bu wax génn moom mooy loolu rek jëf mbokk yi kon loolu moo nekkoon seen émission jotaayu euh, atu murit ñu doon amale jotaay bi fii ci marché Ocass kër Serigne Mahmadoune Sylla ñu sant euh, bu baax baax ñi nga xam ne ñoo teewe jotaay bi di sant mbokk yi koy seetaan di siyaare mbokk yi nekk ci Tayba yëpp nag di ñaan sun borom subhaanahu wa taala yàlla nanu may dund gu euh, sax dàkk ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey dund ci lislaam jox ñu nag ay xéewal yu ñu liggéeyale Serigne Touba Xaadimu Rasuul seen mbokk taalibe Fallou Gala Sylla moo nekkoon ci micro bi Alhaaji Fallou Sylla ak Serigne Assane Diop ñoo nekkoon ci wàllu machine bi ñu leen di sant di leen gërëm di sant mbooleem taalibe yi ak mbooleem euh, téléspectateurs yi yëpp di leen ñaanal tawféex di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بسم الإله إفن الدار الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillaahi fiinin أدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له